waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuy bokk yëpp Sidi Mbacke Cheikhouna Abdoulaye conseil communal Touba Mosquée responsable politique réew mi Idrissa Seck actuellement. danoo toog xool ni réew mi doxe bi ñu diagnostiqué réew mi yëpp ak ñi mag yi bëgg a jàkkaar lool ñu xool sunu gëm-gëm ak suñu pas-pas natt ko ci xayma Idrissa Seck ñu méngoo lool tax ñu taxaw yaakaar ne li nu daroon ci Macky Sall mën nañoo bañ a dal ci moom. muy am sunu ngëm-ngëm jox ko ko ak sunu pas-pas ak sunu doole jàppale ko walanteeru ngir mu jotaat ci réew mi redressé lii fi nekk ba tax ñu takkaayu ànd ak moom mais finalement comme Macky Sall moom dafa gëlëm ba noppi li ñu gën a naqari ci àdduna moo ñu ko teg kon dañuy jàpp ne rek xañ ne moom ñeme nañ ko ñeme goo xam ne ci moralement idée ak programme ak décision ak jom ak wallanteeru ak bëgg ngóor guñ mën a defaree Sénégal ku ne war na ne firnde ji ni mu ko wanee ci Thiès moo tax ñu am pas-pasu gëm ne ñun war na mën a topp ci gànnaaw pour jàppale ko bàyyil xel ne Abdoulaye Wade 12 ans yi yëpp nit ñi di opposé wu rey seen bopp néewal doole bu néewal doole doomam la mais du nit ñi dañoo munta ñàkk Abdoulaye Wade donte defal na lu nu kenn defalul nag wax dëgg yàlla surtout réew mi surtout noonu waa Touba te lu ma accepté la waaye nag réew mi ci boppam nu àggagut ndax sëriñ bi dañu seen blaat daan wax naan folli leen seeni nopp te seeni bët fa lan toll ay nit ñu ne jaar fi nekk yeewu na macha allah def na fi lycée def fi ay universités yu doy sëkk ba nit ñi léegi jàng nañ jàngum àdduna yeewu nañ ci àdduna ba léegi kenn mëntu leen a sarxe kon violence moom ku koy xaar ci réew mi doo ko gis mais li ma jàpp ne rek lu ciy luus mooy damaa jàpp ne xañ na ci sama xel moo xam ne maa ko xalaat man am na lu ciy luus ci sama bopp mooy Ablaye Wade ko xam patriotam ak capable am ak pas-pasam bu demee bay xalaat ne réew mi élection du am te campagne mu seetaan loolu lépp fekk ko parrainage bi mu fekk ko lépp mu gis ko lenn lu ci nekk mu doon ci joxe ay xalaat tamit ëpp ñoom ba dernier moment mu ne la 23 la la plan stratégie bi taxaw loolu moom du lu mekk sent sama bopp parce que élection yi bu xasee des ñetti fan doonu tut élection yi Macky Sall doonu tut élection yi Idriss Seck doonu tut élection yi Abdoulaye Wade élection yi askan wi ñoo koy def sunu askan su sunu kaaraange moo koy sécuriser te duñ ko bàyyi mu di ko yàq kon loolu mënul nekk bu fekkee dafa am lu am biir nañ ñu ko wax moo te Macky Sall mii ñuy waxal ñoom dafa leen di nax 2024 pare wut pour bàyyi nguur gi ñaari 5 ans la diggee ñun ci référendum bi te moom lay def 7 ans boo boolewu ko ci. la tax ma fekk mu am fitu yokk ci ñaari at ngeen war a xam ne pare wut pour toog fi 7 ans wala 12 ans 17 ans la fi fas yéenee def kon Abdoulaye bu fekkee ci sama xalaat man gëm na ne Macky Sall 2024 dana ko jox doomam réew mi dana bàyyi mu posé candidat mi ngi nax boppam bu ñu saraxee mi nit ñi nag ba muy néewal doole Macky Sall. mel na ne Ablaye Wade dafa aay woon gaaf ndax kenn du ko tudd ci basan fii ci Touba ndax doxit wu mu doon doxit xamuñ miinuñu ko woon ci ak taalibe ak lu ñu ko doon jiiñ buntu xatal gu mu doon xatal buntu xatal Macky ba tax ñu far ak Macky moom it ak noppeem ray ñu ci moom bañ jàpp ni nit ku yaru la ku réew mu ñor la ku am passeport la ku am vision la nekk famille ma ko ñor ak askanam ak ak ay saay-saay yu ko neex yi ko encadré loolu problème am la moom kon su ñëwee ci loolu moom mu bëgg taxawaat wax lii doomam jii nit ñi di xeexal Sénégal xeexaluñ ko ngir kane day doomi Karim Wade déedéet dañ ko doon xeexal ngir néewal doole gu guñ ko doon néewal doole te Sénégalais di patriote même bu doon bu doon benn ci àll bu gisoon étranger bu ñu néewal doole ci réew mi sax joxe jaral na ko joxe bokkam bokkam ak keneen surtout nga bokk ak moom réew buñ jaawalee loolu injustice kuy bañ injustice ak kuy far ci nit ba doo xam looy def la doon gën nag mooy mu tànte ci nit tekki encadré jot ci réew mi foofu lañ ko doon xaar mais pas a taal réew moom du lu lucide mooy ku tal ne ma dikke ak ni mu représenté ci PDS ak responsabilité yi mu feer ak ni mu yàggee ak Macky yàgg kook Abdoulaye Wade su ma nee taxaw diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ak Karim Wade moo ci mën a wax lu wér lu ñu mën a jàpp lu ca xew moo ko xam lu fa am moo ko fekke ñu fa def ci ñu ko dogal la bokk su amee sañ-sañu génn PDS taxaw uniquement taxaw jël fichier PDS représenté ko parce que mën naa ne parce que différence bi bëriwul mën a taxaw posé dëggal boppam laaj réew mi am na ci droit waaye nit ñi am nañ droit ci seen xel tey ci yaa am problème parce que bu ñu leeraloon diggante Karim Wade ak Macky Sall ak Ablaye Wade li ci xew dëgg-dëgg doo ko posé candidat du doon problème du doon problème mais léegi ba léegi ñun li um suñ bopp ba léegi dara da ci leeragut te ñoom ñi ko séq ñëpp ba léegi seen mbir mi ngi dox ko loolu nit ñi ñoo am droit tey ci am ci xalaat te ku mën a doon it da nga ci xalaat bi fi Ablaye Wade di jógee soxlawuñ ay université man na ne yiñ ci amoon suñ ko organisé ak programme bi mu a doxee baaxoon naa noonu ba ci kanam ca yooyu jamono. li ñu amoon ci ay lycée bu ñu ko organisé woon teg ko ci programme bi ñu waxoon ñoom baaxoon naa ak noonu ba ci kanam bu dee ay yoon liñ ci amoon du ma ko ne baaxoon na ndax am na ñoo xam ne newoon nañ siiwa ami yoon ndax am na lu ñu ci yokkaat du ma ne déet waaye it fañ tolloon ci wàllum infrastructure euh, éducation ak assainissement ci réewi taax yu mag yi doyoon na ba ca kanam tuuti ñu gestu monde rural bi parce que newoon na mooy prioritaire am Sénégal rek moo am suuf su tàlli soo xam ne fu la neex bay lu la neex mu nangu loo fi ji mu nañ encadré néew ji doole décentraliser matériel yi règle bijjanti monde rural bi fekk leen ci kaw tatagal leen encadré leen bañ xam liggéey mën a liggéey ñi ci taax yi bu boobaa rond-point Sandaga bee ñuy dàq nit ñekk de monté police ñu leen di sonal dootu am ñëpp ay xéeme ma delluwaat ci àll bi tam mën na nekk sept yi bu ñu ko investir woon ci développement réew mi mu ñor leen mais loolu ñoru leen pàccoo réew mi daggoo réservé ay boo xoolee sept yi ay réservé rek lañ fi dagg jaay nañ suuf sàngam jënd nañ suuf sàngam diw giir na suuf sàngam diw miir na sàngam Alioune Sall ngay dagg fa laa wooyo pour campagne ko loolu kenn mus koo gis ci àddina te ay kilifa rek lañ ko jox ak ay notable yu bokk ci réew mi ñu di ko dagg ay kër di ko jaay seen programme loolu la séddoo nañ ba doyal léegi nag li bëgg mooy finaliser seen mbir ba bu ñu fi jógee kenn dootu leen mën a jàpp te loolu lañ ñuy pareel lu la wax ci campagne bi du dëgg ndax luñ la mas a wax defuñu ci dara Ila Touba bii ñuy wax autoroute Sénégal la woon Macky Sall euh, Karim Wade da ko doxoon indi ko fi Abdoulaye Wade valide dinaa ko teg xeer far yàlla dogal mu jóge fi bi mu fi jógee moom bi mu ñëwee dane dama koy campagne parce que Touba Dakar war nañ ko mën a def APS changé programme bi dugal ci loolu Matam Dakar Matam Touba mu def ko firi moo waral ñu xaaj suñ corniche bi defal ñu ñaari deux yi ci rond bi mu wuti gaz daara Jolof autoroute bi bu Macky Sall gagné diggante bu gàtt boobu lay soofalewaat pour mu continuer fii ba Matam doon firi fii ba Dakar ñun waa fii bëgg koo tëjaat ndax inauguré na ko ndax mënut a ñàkk campagne amul bilan bi mu ko inauguré daa mën eh, eh, ko oto bu fa jaar nañ ko estimé maa koy fay loolu ci contrat ba lañ koy dolliwaat wala soit moom loolu lu nu ko fa jaral xaar bu pare mu ubbi ko noonu gis na wérante na mais ubbi gi da pare wutit amul la demee jam ñaajoo nga ne fi ne bi ndox mi ngi see yàggut ba fi may waxee am na ci am na ci kër yoo xam ne ña ngay ball boo xoolee aéroport bii nga xamante ni si bi ko Abdoulaye Wade di indi fii mu dem ñaari ñaari porte sortie la am yu confort yi ci des ñëpp piste la ceg te piste bala avion yi taxaw ci parax paraxam bu yàkkamtee tax mu def ko terre bii ñuy wax nii ab euh, Blaise Diagne bee taxoon ñu def ci milliards yu baree noonu waa EFAS ñoo taxaw fii lànk na ko du romb jam ñaajo ndax suñu xaalis dañ def fii ak aéroport dañ ko bëgg a récupérer tax mu yemale ko jam ñaajo ci xaalis dugg a gaaw teer te teer baa nga ne fi ne ñu ngi ne fii ak 6 mois lay daw te mën naa demaat 200 du baax te kon ci bilan bii bii la ko la war a mënoon boole mais bokkut ci bilan bii mu génne nañ wax askan wi dëgg dafa tële te mënatut a dem nax na noo naxa naxa naxa naxa naxa naxa naxa nax ba amatul naxukaay na noppalu te gëm yàlla élection yi ñu bëgg a sàcc nag dinaa ci ñëwaat yeneen émission SICAP 1 jeeg SICAP 2 li ko waral ak ñi ñu bind daar a dugg si ci Thank you